yàlla bu mu doon suñu mujj fekke ko te ñu tal ko te mu ànd ak wér ak kàttan di leen jox tamit ziyaar ak nuyoo ak ñaanuk sëriñ bi di jottali ngërëm ak cant ci mbokku taalibe yëpp ci xew-xewu diine bi nga xam ne ñun ñëpp ko àndandoo ci ndigalul suñu boroom ba weesu ko di leen ci jottali cantuk sëriñ bi moo am nag ak yóbbante boo xam ni ci moom la jóge mu jëm ci mbokk jullit yépp ak mbokku taalibe yi mu ni ma woon bu ñu ñëwee bu ñu laataa julli ak jombul sax dinañ def yeneeni communiqué ci rajo yi ngir mu gën a yaatu mu jottali ko tamit Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ni moo yor kàddoom léegi la ma ko gaaralaat muy tolluwaayu jamono ni nga xam ni moom la àddina bi toll ak yëngu-yëngu yi ci xew yépp ak réew mi nga xam ni mooy réewum Sénégal te ñu bokk ko te mu ni muy réew moo xam ne mii réewu li ci ëpp réewum baykat la te nawet bi xawa a yeex ci gox yu baree baree bari mu ni ma nag nañu wax mbokk jullit yépp rawatina mbokk taalibe yi muy jox ndigal ñu dellu ci suñu boroom tuubal ko tuubal gu wér gu yaatu te it balon tey aq ginnaaw loolu ñaan yàlla mi nga xam ni mooy boroom kàttan di boroom ndimbal mu dimbali ñu ca kàttanam ak ndimbalam woyofal àddina bi ci fànn yu bari rawete na nawet bi nga xam ni dafa yéex ci gox yu bari mu ni ma woon dimanche jii di ñëw dibéer buñ ci demee ba ginnaaw tisbaar ginnaaw ginnaaw tisbaar fii ci masalikul jinaan ak bépp box boo xam ni dañ koy tudde sëriñ bi ak bépp daara bu ne ci réew mi ak bu nekk ci gox yeeg goxaat yépp ñuy jàng alxuraan di tamit zikkar di tudd turu yàlla yi ci ku ne nam ko mane di jàng xasida ku nekkit na mu ko mane bu ñu koy def ba tàkkusaan ñu dellu ba ca ëllëg sa di ko def ba dibéer ji dellu bu dibéer ji dellusee ca altine ja nee na nañ ko yendoo buñ ko yendoo lu waay man ci sàkk sarax ak xéewal mu def ko fa mu féete rawatina barab yi nga xam ne yii mooy barab sëriñ bi ak daara yi bu ñu ko xëyee ci njàngum alxuraan ak xasida ak zikkar bu ñu amee lu ñu am ci xéewal dimbali ñi nga xam ni dañ ko yittewoo mooy noo néew ju doole yi bu ñu ko yendoo ba takkusaan nee na ñu ñaan nee ñaan gi sax ci moom lay jóge moo koy tëjal boppam moo ma ko wax bii ci waxtu ci 9h la ma woowal boppam tey léegi bi may ñëw la ma Cheikh Mouhamadul Bachir wax ni loolu naa leen ko jottali jottali ko mboolem jullit yëpp rawatina mboolee taalibe sëñ Tuubaa yi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp day ñaan lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu yàlla mi nga xam ne mooy borom dimbal ak borom kàttan yàlla na ñu dimbali yàlla na sëriñ bi yàgg fi te wér yàgg ñoo jiite ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi nga xam ne bii moo nekk ca bopp ba te ñu ànd koog moom ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.